asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a nekk si àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar saison lamb bi nag tëj na xam nga loolu mooy li nga xam ne nii moo am ñuy ñaan yàlla tëj bi tëj si jàmm waaye ubbiwaat si jàmm ñëpp fekke ko te tal ko kuñ ci tooñ ñu ngi lay balu àq ñun tam ku nu tooñ baal nañ la àq di ñaan yàlla jégal ñëpp defal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag dañoo ñëw ci benn dëkk benn gox bu ñuy wax yaraax fekk si koo xam ne nii ndar-ndar la mi mbër la mu mag a mag a mag mais dafa am koo xam dañ ko fekk ak moom mu bokkoon bureau de amateurs ñu koy wax Mbaye Seye nekk ci maire yaraax bi yaakaar naa am na lu mu doonoon ci làmb ji suma jumulee Mbaye maa lay ziar. waaw ngi lay ziar suma sëriñ di leen nuyu bu baax Babacar e, di rafetlu e, vraiment passage bi ngeen def au niveau de yaraax ñëw fi e, ci ngiru suñu champion bi nga xamee ni fii la defee palmarèsam muy bët gën ndar ñu gën ko xam ci mu daaw et vraiment ñu kontaan ci lool ci ñëw bi vraiment mën a témoigner ci lu témoigner lu bari ci moom ci jaar-jaaram ci làmb man mii tamit bokk naa ci ñi nga xamee ni vraiment ba mu démarré ba léegi on est ensemble maak moom muy sama xarit ñu nekkandoo ci làmb ji àndandoo bokkandoo yaraax dafa mu defandoo fi palmarèsam lépp kon vraiment bisam bii tey war nañ ci mën a wax lu bari ci moom am na solo vraiment ba yàlla dimbali ko tey mu génn làmb ba simeeku sumbawaat duggaat ci làmb nekk promoteur vraiment bëgg a développer làmb surtout nag ci goxam muy ndar ga mu juddoo waaw loolu vraiment ñun ñu dëkk yaraax ñu ciy kontaan lool vraiment. yow dama lay laaj si lu gàtt rek euh, euh, bureau des amateurs yaakaar naa da ci bokkoon de. waaw bureau des amateurs man dama ci bokkoon. man maa doon deuxième trésorier des amateurs du Sénégal mooy premier bureau bi nga xamee ne mooy bureau sortant bi nga xamee ne du jan jekku moom la nekkoon ak ñoom Adama Bopp ak euh, ñoom Moustapha Diaw ñoom Sëwru ñun ñoo jëndandoo parce que tey euh, bureau boobu tey ñun ñoo doon presque première amateur yi nga xamee ne woon à su ñu mag ñi fi nekkoon bi du jan jekku ñëwee ñun ñun ñootoon toon deuxième amateur yi à part association des amateurs jeunes yi génn vraiment ñu nekkoon ci bureau bi di ci travailler parce que bureau bi ni mu conseillé mooy kenn ku ci nekk gox ba nga dëkk ci au niveau Dakar dundu làmb dañ ci copté woon ñaar wala ñett pour ñu ñëw mën a bokk ci bureau des amateurs man loolu nañ ma copté woon bureau des amateurs parce que dama nekkoon yaraax di travailler fii nekk ci wàllu làmb nekk ak champion bu mag muy Moussa vraiment génn ko ci làmb njëkk fi créé école de lutte au niveau Hann ba tey bañ génn ci champion muy Moussa Ndoye looloo taxoon vraiment eh, bureau des amateurs copté woon ma ma nekk ak ñoom di ànd ñoom ju liggéey ci làmb ji voilà kontaan ci yow. waaw ñu ngi kontaan ci yéen tamit. leen remercier jërëjëf. léegi nag taala ñu tourné si booy get ndar mi ñu seet si tey olof a ko wax maam gàtt na waaye si jur gi la bokk maanaam làmb la ñuy def parce que yaakaar naa ku xam làmb rek te di ko seetaan xam nga booy get ndar bu baax a baax ci làmbam euh, ak neex ak saf xoromam champion maa ngi lay bëggee. ah déet boo dindee xorom si du sotti de bëggee naa la. maa ngi lay ziar wér-wér kontaan trop ginnaaw maa ngi nuyu suma sëriñ sëriñ ba Bassirou xam ni mooy sama lépp su ma laa jébalu di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke mu yàggul jaar naa mu teral ma ma ñebe mu may bu bëri wax dëgg yàlla maa ngi nuyu baax ko ñaanal yàlla avant tout maa ngi nuyu waa Ndar yëpp di nuyu monsieur le maire Mansour Faye ndax doo lay jël ndox dam bay sawewu tànk di nuyu suma leader Cheikh Samba Sène di nuyu waa Yaraax di nuyu Babacar Mbengue bu baax moom gis na télé mu dem aussi nuyu parce que man Yaraax la am Ndar du dëgg di la nuyu yow di kontaan trop si teewaay bi di nuyu Mbaye Sèye mii nga xam ne mën naa ni moom mooy daanaka mooy jaw bu yaraax parce que lu mbëri laa rek moom mi ngi si mi ngi si biir quoi nit ku baax la xool bi aussi dara nekk si wax dëgg nit ku baax la di jàppale booy di leen a baax di kontaan trop nag si ñëw tey fii waa Leewtoo TV maa ngi di bu baax parce que yow bëggee laa lay xoolee am am non c'est sans farce xam naa leen may sëbi kon am na benn télé bu ñëw fii mais moo xool xam ne kii du ma si am war ma ne xaaral ma ci ma itéré wu mais yow moom dama bu baax a baax parce que da nga booy gét ndar ci làmb booy gét ndar ñaata combat def ci làmb. non man sept combat laa bëree sept cinq combat de cinq victoire deux défaites. sept ak sa nga jot a bëri. parce dama ñëw dama ñëw andi samay fem. comme yan fem. xam nga làmb boo nekkee boo duggee boo ñëwee làmb naan maay maay numéro deux maay numéro trois numéro deux ngay nekk rek mais dama ñëw créer andi samay incha allah andi samay bamse andi samay incha allah yooyu xam nga andi ay bamse yooyu xam nga. ay lancé ay lancé. yooyu. c'est mooy c'est. non incha allah lay wax quoi maa ngi arabal yooyu xam nga bamse ak ak doole biir nga yooyu doole biir am doole biir yooyu maanaam mbër boo bëggee am bës bu ñëw toppandoo naan may numéro 2 da nga ñëw créer sa yëfu bopp du waaye bu ñu naan may numéro 2 numéro 2 ngay nekk numéro 2 kenn la jëkk Balla Gaye 2 kenn la jëkk. numéro 2. Balla Gaye rek la jëkk. waay lu tax lu tax nga wax. ah loolu loolu yàlla dogal. waaw moo ne ngay nekk. 7 combats 5 victoires 2 défaites. sa combat yi nga bëri. mën naa wax ñu daan tax. waaw waa limbal ma ko kay. sama premier combat kii daan Fall Yarax bii ki ki ma woon ki ma woon stade. waa Yarax nga ñëw Yarax daan seen. waaw stade mu nekk Igri Mbite Ndiaye ñu daje ma daan ko fa ma bëri ak du set Louga si la Modou Lo ak Lac de doon def signature boobu boobu laata ngeen ñëwul woon te mënuloo ñëw sol coppite bi ko ma ñëw bëri fii Ndar la Dakar combat Ama Baldé guy gi ma daan Tony waaw non non Ama guy gi bi bi ciir daan bi no bu njëkk bu njëkk ba waaw ah, bu njëkk bu njëkk ba waaw si laa daan Tony Tony mu topp si euh, nu mu saa kees gi duubale sa nekk si laa tawoon siège nii ma ñëw bëri ak système daan ko gi boo doo mënuloo maa bëri spécial bi waaw ba ba da même même tooy dama daan kenn noyuwul waaw si la si daan combat boo génn mu dàq combat moo looki bi waaw après mu bëri ak Maurice mu daan ma bëri ak Boy Faye mu daan ma ak Baye Ndiaye moomu daan 30 mu ngi ci armée française ngi ba France ñu koy nuyu di nuyu frère am Sentel ñu loolu de loolu laa dégg loolu dégg carrière boobu bi mu ko defee xëy xëy bàyyi lamb gars yi ne get booy get ndar waru ko na bàyyi làmb lan moo la motivé ba nga xëy xëy bàyyi làmb noonu da ngaa jeexal wala waaw xam nga baaba xam nga nit ku nekk ba demee si alxuraan dafa ne ridal laay wa ridal waalidayni yàlla dafa ne sama ngërëm mi seen ngërëmu ñaari waajur surtout laay waxtul waalidayni maytu ko may bëree muy am actrice mun ma mun daa wër mun daa wër laa tudd mun bàyyi bëree waaw man gën a comme yaa ma jur te te yàlla moo ni maanaam àjjana mi suuf tànku ñaari waajur xaar ma bàyyi bëri mun soo bàyyi bëri di lu gën bëri li ma nekk nii man gar sama ba nga xam ne incha allah damay dem parce que am naa sama ñaari waajur loolu kat man ma tey dina naan bëri ma dina naan doole booy gàtt ndar bi mu ñëw na idol non waaw man man man boo bëggee dëgg dëgg rek man baa booy ne sama idol waaw parce que man man ñu bëri na ànd àndaan loolu quoi si arñeem ak kii xam nga donc faawoon baa booy waaw léegi nag su ñëwee bàyyi nga làmb léegi nga ne promoteur nga lan moo la dugal lan moo la motivé ba ngay xëy nekk promoteur. waaw léegi a Baba a ma ñëw promoteur bi damay gërëm Balla Gaye 2 benn maa gërëm bu baax gërëm am ma heure am waxtu barke alxuraan teel laay waxe wa ma sey naa ila maalim naa ni ku nekk li nga xam si moom ngay seet si moom nit ku baax la barke alxuraan di nuyu soxnaam buri bàccali di nuy bu baax a baax a baax Cerno sama xarit la su ma ñëwee suma baal moom Maurice Baal def maa ngi bu baax barke alxuraan ni ko baax la moo tax nit ñi dañ tey ci moom yàlla xol te dama lay de li yàlla xol lay fay kii noonu mbay si mi toog noonu la mel gis ne du jooy du génn rongoñ tiital si ne du a dee papandee du jooy du jooy soo suñu xol la du kese la nuyu baax di nuyu Aziz Ndiaye patron am di nuyu Baye aussi yam lay joxan nooy yow waa mais yow du ko seen naa ilaa maalim na man yaskur naa si miskurulaa sondu da sant yàlla di waaw maa bi nga xam ne garab gi fa addis yàlla moo su ma bal damay nooyalal bal eh, waayu li nga neex na di dara gën dara ngi taal maa la ko gën dara ngi c'est moi c'est toi hein waa léegi nan wax si léegi <laughs> léegi promoteur nga léegi lu la dugal ci promoteur u làmb waaw xam nga Babacar ñun dañ nekkee xale ku xam gendar xam doomu gendar du tàllal loxo ñun gendar boo demee gendar tey boo xëyee ku xëy yaa ngi géej ñoom ñàkk dund noonu xam liggéey jaamu yàlla beneen na ba bàyyi bëri man ma tàllal loxo moom ma ñëw naa nekk promoteur te ndar loolu dafa manqué trop ndar di ko ci sànn la Falang fa la dëkk Ousmane Ngom fa la dëkk El Hadj Diouf doomu ndar la Laye Diaw doomu ndar la Asmatu doomu ndar doomu ndar la Ndiaye Ndiaye ah Cheikh Amar Babali Ndiaye ñëpp ay doomu ndar

moo tax dama dama autorité yi jàppale di lancer appel bu baax autorité nekk ndar ku si mel na première dame Marième Faye Sall parce que moom doomu ndar la te ma élection yi passé dama si sonn bu baax a baax pour Macky Sall gagné barke alxuraan ma génne sama kër seetee tamit laa dugg sama kër tey nan nan si jàpp nag xam nga jàppale mooy jàppale ndar jàppale booy génne mooy jàppale solo su ndar sama portable su ma taaloon léegi mbëri chaque jour damay vocal mbëri ana combat foo loo taxawal non actuellement maa waaj taxoon naa maa ngi doon dox combat petit ball non petit bu équipe Birame Ndiaye ak booy hydrobase bu équipe Thiaroye sur Mer Amed Dem Amed Dem waxtaan bu prix prix dog waaw Cheikh Robert bu gendre moom moom moom a nekk mais seen équipe Dakar nekk quoi parce que bay sa xam nga man daal dama bëgg nekk ndar jàppale booy ba keroog may jëm ci kaw quoi booba ngay ñëw Ndakaaru daal tëgg si fi baax nag a baax a baax Moustapha Diakhaté jarab président groupe parlement. Moustapha Diakhaté benn. léegi nag dégg nga téléphone moom sama la. bu APR. bu APR maa ngi bu baax a baax di nuyu Ndiaga Ndour. sa sa xarit yu kawe nañ de. di nuyu ba nga dem ak bureau ma recevoir la baax di nuyu Fallou Diop. mi si baax ni ma am wax dara daal jàpp bu baax a baax parce que dañ baax baax da ngay wax waa lii la baax doo wax léegi loolu noonu na waar de yenn saa sax nee na waxal yiw wala nga noppi nit nit wax yiw wala nga noppi bu ñu ba wax xam nga lu nëbb lu bon. rek la wax lu baax da ngay sooy ba mu siiw wa maa bi ndax ma di garab bi nga yaa wax dëgg waay eh, loolu nag wax nga fi nga bëgg a dem ak sa ambition làmb ji ngay tëgg yooyu mais dafa ne xam naa fa la ñuy jaari tëj mooy dañu gis làmb ju am bërki démb diggante Modou Lo ak Eumeu Sène Modou Lo dóor Eumeu Sène mu daanu yow en tant que technicien combat boobu noo ko jàngate bala ma ñëw si combat Modou Lo bi dama am ko ma faral xam ku xam Balla xam ne wàllu wàllu la te alxuraan moo ne al aqrabu a a de Guiers 2 sama xarit la baax di nuyu baax a ba fees waaw di jànguma xam naa sama diine boobu ñun jàngu mais ñun buñ duggee buñ ci juddoo dañuy dugal daara jàngal suñu diine ma yor ñun lu mu bon bon suñu diine nga xam parce que nit adduna fii njaru gaay la gaay yi bu la bu la gasee ba mu xóot lay suur wala gannaaw booy génn da nga baaxoon boo fa deful dara te nga dee ah yow yaa loolu léegi yàlla moo ne inna rahmatallahi xaribun minal muhsinin mu sama yërmande yaatu na waaye dafa jógee ñi def lu baax kon ngay google suy baax yi yàlla jéggal la waaye yal yàlla baax na rek nuur si bàkkaar yi nga dem yërmande yàlla maanaam def ka lu baax yi la jege ah yërmande yàlla def katu ñu baax li la jege si télé laay wax inna rahmatallahi dak sama yërmande ma yàlla xaribun dafa jóge bi ngeen suñu yi def njëkk yàlla bu sama yërmande dafa jógee kon la la sëñ bi waxoon waaja rek mu ne ko bu ngeen ñu fekkee ëllëg àjjana itam ni ngeen ñu yóbbu ba mu ko yóbbu mu ne ko ca yoon wa. jaana ma ko jaana. mu loo Eumeu Sène di boog noo ko gisee. fi mu mujjee xam nga làmb jaaxla woon dañ ne làmb làmb moom nekk lay ñëwee même Modou Lo mi daan sax moom loolu da ko bett làmb moom nekk lay ñëwee dafa dóor ak mu tombé mu loolu la amul amul man dama ko xaw kii tuuti quoi parce que ku ne xam ne booy bëri mën na Modou Lo moom ba mu taxawee maam léewatoo saaw saawar rek laa xaw a waaw Modou Lo gis na Baye Mandione ah amul ci moom kaa dëpp Modou Lo daf kaa dëpp ci Baye Mandione waay waay non non dëgg saa yi man kay du maay wax yow yaay wax maay wax dëgg yàlla xam Modou Lo Baye Mandione ku ne xam ne Modou Lo dama kaa dëpp mais Bécaye nee na nuru na kadap mooy instant parce que mënuloo siiw rek comme booy ñaanal rek bii ko attaqué am si moom dara li mënuloo bañ la Ama di bëree. li mënuloo bañ. la Ama di bëree amul yow Ama Sénégal neex combat ñoo soxla mënul Ama Baldé. yow mii waa da ngaa far. far ma dama dama wax làmb li ma wax lu ko mën dindi li ma wax na bàyyi na kii ma ne Aliou parce que Aliou am. Ah, ah, dama dégg ne mënuloo na jël Ama. man man booy gënal maa ne mënuloo ñu ngi attaqué ñoom dara attaqué fu suuf leen attaqué ko am na am na si moom dara bàyyi ma ñëwoon xam nga bàyyi ma ñëw moo la ko man mais mu loolu da ñeme maanaam kon su doo ko daan nga daane muul loolu naka lamb nga ni léewto doo wax gisoo balla bu dee ñëw am lu am jël ku nekk sa fort baboy lu ma la bëri attaque moo doon moo doon daan si lay saa kis attaquant la ama bal de sa attaquant la Lac de Guiers doo doo doo attaqué loolu lay bëree man ba ma dégg ba dégg champion bëri ku nekk sa bëree mënu loo bëgg dama yaa ngi mi yaa ngi ko daan maa la ko wax. mais Mourou ñu bëri dañ ne daa jaaxal ponk li tax kon mu jaaxal ponk li. man man ponk la jaaxal. ah di gars yi di ko wax. am giri waaw avancé giri. ah giri ba roog Modou Lo bëriwuñu Modou. champion la champion giri champion. mais Modou fa am ndam de. waaw waaw benn bi kenn lan la di soo arbitre benn benn quatre appuis. quatre appuis du jël. waaw jël la mais am na jël bu gën naa si ba tey jël bu gën naa jël xam nga jël la mais jël bi am seen mëloo daan am seen xam nga naagis na kenn ko werante jël Balla Gaye daan mëloo si ka naagisul xam nga kenn ko werante bu jëkk ba kenn ko naagis am seen Balla bu jëkk ba ca xabal bi ko kenn ko werante yow ñooy jël la ku xam ne ku xam ne Balla champion la loolu lamba laa lay wax contre ma mëloo mais dama la mëloo nag mu yël léewatoo doo ko daan may wax yow Babacar yow kay loo ma wax ma gëm ko ndax borom xam-xam lamba lay wax Sénégal yi xam na loolu mu ñëw taxaw di liwut am nga am nga day bëri mu lu mérite si suuf ginnaaw daa xarañ bi jëmul booy bi kan ñëwu ko avant bi bu amasi amasi bu tuusee bi amasi moom moom moo yoroon lamb ji mais bi arbitre bu desee ay deux mille arbitre ciblé mu dafa dafa nangoo lamb ji te kat nanguwaat ci nan mystique wala lan terrain la la nangoo lamb ji mu dafa am caajaay lamb am nga la mbër kaamil la mën a bëri mais dafa dafa maayeen muur dafa dëgg dafa ko maayeen nag muur ki du ko maayeen Balla Modou Lô yéen Ama Sénégal jëm kanam Sénégal Modou Lô yaa may dégg Sénégal ñoo bëgg yow Ama Baldé lama ji neexaat jël boobu ngeen bëree nga may ko sens parce que Balla da nga mayoon sens bu njëkk ba Père Birame na yegg seegul nag Père Birame mënu ko ak seegul ah, Ama Père Birame Ndiaye ngi mi yore Modou Lô manager am waaw Birame ñu mi yore Modou Lô manager am non waaye wuy ma Babacar nan wax dëgg yàlla tax xam nga ku daan Tapha Tine Tapha Tine Tapha Tine bëriwul ak Balla Gaye roi des arènes Tapha Tine daanu Bombardier champion ku daan Malick Niang bi nga am Ama Baldé daan ko ko yaakaaroon mu ñëw jël jaay ko bakkanam live xeex Papa Sow sos guy gi waaw ndox ndox ndox ndox acamol lambale xam nga affaire affaire rek Sénégalais ñoo bëgg Modou Lô Ama Baldé jàkkaarloo ñu xool waay waay waay baax waay baax biram ñu ngi mooy manager Modou Lô mais Modou Lô mënta am ci ñoom ay wéri wéri dari dari ya ah. wéri léegi rek Modou Ama c'est toi c'est toi Ama moo xew da nga jël ñu bëree Sénégal jëm kanam jël booy bi ñu bëree booy ñu bëree. Guet looy tàggoo. waa li may tàggoo mooy di gërëmaat waa Ndar bu baax encore une fois di nuyu sama xarit nag alaaj Bekaay Mbaye Babacar su ma Sénégal xamee an naa ko waxaat Bekaay Mbaye moo tax ma koy gërëm bu baax ñëw na sama kër ba sama néegu yaay sama yaay ñaanal ko xam nga loolu yombul ma dem ma ñëw ba Ndar fekke si ma loolu vraiment loolu loolu vraiment loolu ma koy defal lu baax a baax ma koy nuyu bu baax baax Bekaay bi di nuyu soxna Mbaaya di nuyu Lamine Samba journaliste Malick Thiandoum Ngagne Diagne ñëpp dem samay waay Malal Malal Diagne si ñor nga moom doomu Ndar la aussi ma ngay bëgg baax di rafetlu comme yow yow ma lay bëggee bu baax di bëggee waa Leewtoo TV xam nga lan yi siir si nii ma lu bëri Leewtoo li TV ñoo fi lamb 100 pour cent booy gerte ba ma bëgg la première fois moom site c'est la première fois site bi moo ko jot moo xew Leewtoo TV moo xew ku bëgg a siiw ñëwal fii te fii à ah,